lundi 3 juillet Nek rendez-vous bo xamanteni sénégalais yépp dañ ko japp ci seeni ay bir bop liko waral moy discours à la nation bi nga xamanteni le président Macky Sall fas nako amal ni ki bu 20h joté lolé nak nek lu askan wi di xaar bu le président Macky Sall dina bok waw wala ci élection présidentielle yu 2024 ci ñu dëgmal lolé nek lo xamanteni ni daal dinay jur ay wax yu bari ak ay ciow yu bari ci bir réew mi waral kenn ku nek di xaar décision finale. finale bi décision finale bi nag mu mel ni le président Macky moom la fa seenee joxe ni ki tey daal di yeewi ñëpp ci li nga xamante ni mooy euh, candidature am euh, ci les élections sénégalais yi nag taataan nañ leen suñu micro ñu daal di wax seen xalaat ci li ñuy xaar ci bile discours. waaw bokk bi moom instant bi ci moom la dépendre quoi ndax dina bokk wala du bokk. mais su ma sañoon moom su ma koy xelal dama naan ko mu ngemb kenn mu bàyyi quoi. parce que man man du ma dama doon xeex pour Ablaye Wade bañ ko def parce que ci ñi doon bañ quoi ci laa bokkoon mais nii nii non d'accord ma pour mu def ko parce que pour man def na ñaari mandat na na bàyyi mu sedd ngemb kenn loolu waa nit ñi bëri nañ fi quoi ñu nekk si partem si man mën na ngembaat kenn parce que gars ñu ngi fa ñoom Amadou Ba ñu ngi fa Aly Ngouille Ndiaye mu ngi fa Daouda Diallo mu ngi fa ak ñeneen ak ñeneen ah bëri nañ quoi instant bi mën na ngemb kenn moom mu taxawee ne waaw gars yi taal réew mi moom jóg pour taal réew mi moom ñooñu seen seen affaire bopp la quoi parce que ñoom loolu la bëgg mais loolu mën na bañ am quoi affaire yi ci biir bureau yi la quoi waaw su ne day bokkaat ci bureau de vote yi la quoi gars yi mën na ñëw sanctionné ko bu leen neexee mën na ñëw su dee day bokkaat tamit su dee euh, gars yi d'accord nañ pour mu bokkaat gars yi mën nañ ko votel mu mu gagné mën nañ ko sanctionné mais su ma sañoon du bokkaat quoi mu ngemb keneen mooy yëfi nit quoi waaw na ngemb keneen waaw. ah man li ma xalaat mooy que mu wax non parce que mu wax non moo gën a moo nekk loo xamante ni moo gën a euh, moom li taxoon ñu gën ko fal mooy lii. parce que Macky tegu fi woon procès boo xam ne moom pour man si lu ma gis tax na sénégalais yi bàyyi ñëpp ñëw fal ko mais dafa nekkoon benn nit boo xam ne moom gën a nekk xale te mu jot a jaar moo tax gars yi gën ko gis xam nga bëgg ko fal ko. mais dañ ko doon fal pour juste pour xeex troisième bu ñëwee na bu bëggoon troisième mandat sénégalais dañuy jaaxle waaw parce que instant nii moom. c'est xam nga di puus dara jinax sax boo ko jinax boo koy dóor ba mu dem ba ci miir bi bis ka ne day fipp jàkkaarloo ak yow donte ñemewu la sax mais day fipp jàkkaarloo ak yow ne day def troisième mandat ah peut-être am na lu mu yaakaar xam nga waaw parce que ku ñemee tamit dañ laa dee mais nekkul loo xamante ni Sénégal yi dañ ko bëgg te duñ ko nangu ah mu jàppee ñu comme ay njabootam rek xam ne fu mu nekk nii nii nekkul loo xamante ni liggéeyam moo ko fa teg mais yàlla moo ko jël xam nga jox ko ñu ko bëggoon bëri na gis nga fi ay kàngam yoo xam ne xam nga tollu ñoom moom si xam ko te bu ñëwee ba toll fi ne foo rek xool jaamu yàlla yi xam xam ne lii nii nekkul loo xamante ni moom dafa liggéeyal yàlla yàlla jox ko ñu nekk si ay ginnaawam duñ ay noonam Sonko tamit du woon noonam dafa indi programme boo xamante ni sénégalais moom mi gën a àndal mais moom nekkul a ko bañ parce que gis nga li muy def nii c'est pas que dañ ko bañ mais dañoo suur si moom te bu doon xëy di def xoolal lu gën a lu gën a pili di xëy di joxe ku nekk lu muy laaj sénégalais mënuñu ànd moom parce que nit moom bu suuree rek xam nga suur na loolu lañ gis quoi franchement. bon président bon war na wax tey euh, pour l'instant man du ma ko juger mais ba mu wax ba pare su waxee ba pare la ñuy mën a tontu nit su ne am naa lu may wax da nga koo war a déglu ba pare lan lay wax ak lan la ci jublu parce que ñëpp ay borom xalaat lañ ñëpp ay borom xel lañu ñëpp ci pays bi lañ nekk fii quoi donc dañuy bàyyi mu wax ba pare su ko defee après nañ mën a réagir mentalement. bon question de choix la mën nañ koo mën nañ ko bàyyi mu bokk parce que pièce d'identité n'est-ce pas c'est une vote qui sera fait par oui ou par non donc ça dépend qui la population non bon lol, non, bon niveau primaire là, nous, quoi nous, ils sont pas sont pas des intellectuels quoi voilà pour man y a une méthode une façon de faire ko choses, def lu ay ay voilà sagage ay affaires yooyu noonu quoi man dans sama combat je le fais mentalement ou physiquement même mais sous ko quoi voilà sous ko bon présent, lol, décision la wara quoi parce que la voilà euh, en tout cas jaru quoi mag la et puis ñun dafa am koy xaar am ko kilifa la ñun dañ ko jox donc man à sa place bon voilà je vais faire je vais choisir le meilleur camp voilà selon selon voilà la population sen réaction ak sen bëgg-bëgg quoi. ñoo ko déggandoo sénégalais yi nag ñoom ñëpp ñu ngi xaar euh, le président Macky Sall daal di wax benn discours bu responsable dal di situer askan wi wax leen ndax dina bokk wala du bokk waaye lu ci mënti am rek ñoom ñëpp seen kàddu benn la li ñuy ñaan ak li ñu bëgg mooy jàmm ci Sénégal.